mbokk yi ñu ngi leen di nuyu daleen ak jàmm ci seen revue d'actu ni ko ay joueur euh, defee noonu la ko Papis Demba Cissé daal di defee ci xeex mi ñeel coronavirus moom attaquant wu Alanya Sport nekk club bu nekk ca Turquie daal di nay génn lu tollo 40 millions de francs CFA daal di koy jébbal ay daara waaye itam hôpital ki association yoo xamante daal dina leen jox ay denrées alimentaires itam ak i kit d'hygiène mu mel ni daara yu ci mel ni euh, ca Dakar Thiès wala hôpital Youssou Mbargane ca Rufisque itam ay association yu nekk ci ñom ah, daal dinañ jot ci nimbal bi nga xamanté ah, Papis Demba Cissé daal dina koy def. batay ñu des ci xéxum coronavirus bi ak groupe Gaynde Foot di kuréel boo xamante fait regrouper anciens internationaux sénégalais ñom nak itam daal dinañu duggal seen loxo ci xéxum ah, coronavirus bi daal di joxé seen contribution financière bu toll ci 3 millions 300 000 francs CFA mom lañ daal di jébal kon service financier bu fédération sénégalaise de football ñaar ña téwé won mbir mi représenté groupe Gaynde Foot di Mamadou Diallo ak. Victor euh, Diagne ñuy daal di fësal kon taxawaayu anciens internationaux ci Sénégal daal dina koy Sumbu, ngir daal di Covid 19. Suleiman Diawara daal rendre hommage Pape Diouf mu d'Adi di expliquer ab anecdote boo de euh, dafay firnel Pape Diouf euh, taxawaay bi mu amoon ak yenn ci ay joueurs muy ni mom ak Mamadou Niang dañoo daal di blessure ngir bañ jouer ak équipe nationale du Sénégal jamono jooju dafa doon fekk mu ka fin du championnat bi sonnoon euh, mu amoon itam coow diggante Marseille ak Bordeaux moom Souleymane Diawara dafa waroon signé ak Bordeaux tombek Sénégal amoon benn match amical moom ak Mamadou Niang nag ñu daal di prétexte ni dañoo am ab blessure daal di dem Miami noppaloo fa bi ko Pape Diouf yégee daf leen daal di yuuxu ñoom ñaar comme ay xale euh, daal di leen di wax ni bu ñu amee ay koppar bay xalaata dem Miami ngir dalu fa euh, lii di football moom moo leen ko may loolu waruñu koo fàtte mu nekk loo xamante moom Souleymane Diawara nee na marqué na ko woon bu baax a baax ndax boobu nekkul woon sax joueur u Marseille euh, teewut Pape Diouf daal di am taxawaay boobu ci moom ci lay fàttali sax bindoon nañ ab lettre ngir excuser wu ci côté fédération bi waaye teewul fédération bi dafa lànkoon jamono googu ngir ñu daal di rejoindre sélection bi. ak confinement bi ni koy joueur sénégalais yu bëri di defee ay direct Instagram di ci invité seen yeneen moroomu joueurs yi mbay Diagne noonu la ko defee ak Sadio Mané daal di koy invité kon ci biir directam ñu waxtaanee ci équipe nationale waaye itam CAN 2019 bi passé. Sadio Mané di wax ni moom ñu bëri dañoo yaakaar ni moom du wax du yuuxu ci terrain bi muy wax ni itam euh, joueur bu nekkee ci terrain di jouer dafay daal di joxe énergie bu bëri euh, buy wax moo tax dañuy moytu li nga xam te moo di wax bi waaye kan bi passé rek moom doon na yuuxu lu bëri ci Crépin Diatta wala Ismaïla Sarr ngir ñuy delluwaat ci défense bi noonu la doon anglais sax ki nga xam te moo di Mbaye Niang ba mu daal di énervé wu ndax Mbaye daanu woon def effort ci li nga xam te moo doon euh, côté défensif bi looloo tax mu ko doon yuuxu euh, Gana Gueye sax euh, daanoon na li nga xam te moo di passé ay neexam ci kaw mbey ña mbokk yi ñi leen di jaajëfal lii lañ leen indiloon ci ay xibaar di leen dig daje ba suba incha